sama gars yi am nañu ndam ba pare am nañu ndam ah. parce que sama téléphone déchargé wul te pour ma duggaat ci Facebook bi bi ma duggee rek dañ ma wax ne ma this life is being terminated maanaam xam nga am na am na fu ñu ko jaarale parce que fii Sénégal la parce que gis nañ ni affaire yi doon deme ah <clears throat> dama gëj a wax te tey damaa waxe xool sama sama baat bi <laughs> sama baat baa ngi wàcc mais li ma leen ñaan rek yéen senegale yi continuer di leen ko ñaan mooy message bi jàll na ba pare parce que waajooju ñuy wax yuuxu mbalit nduur moom rek moo ma tax a génn tey <clears throat> keneen taxul ma génn ku dul moom te li tax ma génn pour moom bi ma demee kaso dafa bind ay tontoom ay tontoom yu bari ma tëdd kaso man déglukat laa man déglukat laa déggu ko muy tontu yàlla def réew mi ñu nekk sénégalais yi dofuñu nelawuñu xam nañu kuy tontu ak kuy waxtaan ak kuy bëggale te moom doomeram boobu comme ni ma leen ko waxee sànq rek léppam gaaruwaale la barki sëñ fàllu lépp lum fi mës a way gaaruwaale la <clears throat> commencé ko ci jamonoy étoile de dakaar wàcc wàcc wàcc ba ci super mbalit super mbalit muy utiliser xelu senegale yi ñun ak suñu yërmande ñu topp ci rek di fecc rek mu defe loolu day continuer maanaam ñun du ñu mës a yeewu boobu ay am na ay xale ay xale yoo xamante ni fii lañu juddoo Sénégal ñu mel ne man juddu 1971 mu commencé ay affaire am xam nga 74 wàcc jëm suuf ñun ñu di ko fowe ma juddoo Medina di topp di topp. bis bu nekk ba xam nit ñii ñuy jëflanteel ñenn façon nit lañ ak lañ lañu bëgg ci ñun afiyu fi la ma fekk Talla fi la ma fekk cosaan fi la ma fekk Kilimanjaro fi la ma fekk ñu topp ci rekk mooy alal ji mu yor tey alal jooju mu yor mu jóge ci suñuy poos moo tax ñun am nañu sañ-sañu heure bu defee lu mel nii ñu wax moom ci sutura commencé na ko ci festival yaa salaam kilifa yépp di wax moom ci boppam mu génne way ne moom taalibe sëñ fàllu la lépp lu muy def sëñ fàllu la koy commencé doomu sëriñ fàllu toog di ko naqarlu doomu sëriñ fàllu laa leen wax de toog ne leen festival yaa salaam festival bi tasaare këru diine yeeg billaay wallaay te mu ne taaliba sëñ Fallou la te terewul mu continuer terewul mu continuer man kilifa yi ma toogal yépp Sénégal bi ma fi ñëwee muy ku sant Mbàkke ak ku mënti doon billahi wallahi wa taalaahi barke maam Cheikh Ibrahima Fall barke Mohammed kenn kenn neewuma ci Assane lu tax ngay saaga wala Assane bàyyi saaga waa mbedd mi rek waa mbedd mi rek xam nga lu tax kilifa yooyu xam nañ ne fa may saagaa dëgg moo tax ma fay saagaa mais ñi nga xamante ni ñoom ay hypocrite lañ nekk ci mbedd mi boo nee yuuxu mbalit nduur ñu ne oh Assane Diouf lan la defal sénégalais yi ah xam nga li ma la wax yee yuuxu mbalit nduur yee organisé na fi xam nga li ak lii réalisé na fi lii réalisé wu fi ndeyam suñuy taks bu ko fayee barki Serigne Touba Mbacké télévision TFM téléfénal Macky kon sénégalais yi ñoo koy moom suñu taxe yi ñu amee la buñ ko fayee ko ñun ñooy moom tele bi barke Mouhamed billahi wallahi wa taalaahi billaahi lu ma gëstu man laay waat lu ma topp laay waat man du ma toog ci internet bi di bi sama làmmiñ bi rek parce que internet bi daa ubbeeku non non non noo moo tax lépp lu leen Assane Diouf ma sa wax vaar baa ngi fi dem leen dem bu fenee génne leen bu waxee dëgg génne leen bu waxul dëgg génne leen Assane Diouf dafa sida Assane Diouf dafa tuberculose Assane Diouf dafa lii Assane Diouf tekkiwul dara yee Assane Diouf a ngi sant yàlla parce que xoolal heure bu ma yeewoo rek ubbi sama buntu néeg bii génn sama buntu kër gis naa ko ma tane man gis naa koo xamante ni maa ko tane may xool ci moom mais xooluma ci ñi ci kaw barke yonent bi xooluma ci ñi ci kaw de bu ma doon xool ci ñi ci kaw bi mën nee cëpp Sénégal xoolal barke Mouhamed maa leen gën a xam yoon wi Mercedes bu rafet laay dawal di kostum di soxo soxo wut professeur xam nga def comme soxo soxo dooméram yi mais xoolal yërmande maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax ma ne leen Baye Fall yi yegg si nañu Baye Fall yi yegg si nañu Baye Fall Baye Fall yi ñoo yegg si te Baye bi ñu yegg see xolal dañoo liggéey comme ni maam daan liggéeyee dañoo liggéey comme ni maam Alaaji Malick liggéeyee pour askanam maanaam bàyyi xel sa askan def ni maam borom Touba def pour askanam maanaam bàyyi xel sa askan def ni maam Cheikh Ibrahima Fall def ba nekk Cheikh Ibra lamp baabil muridina liggéey boobu yee man mooy sama liggéey barki sëñ Fallou mooy sama liggéey néew ma woon Assane Diouf kese non Assane Diouf rek nangam nangam yee kon ma toog Amérique toog ci sama taabal ja toog ci sama wetu jabar ak sama ñaari doom parce que Amérique United States of America fi ñuy ñaf ñiy rëy ndeyam làmmi ñépp di gént pour dem fa kon ma toog ci sama taabal ja barki sëñ Fallou nga fii xoolal boo calculer ñi fiy xëy wàcc walla liggéey kenn wàcc takk benn cinq mille dollars tege ko de côté <laughs> bariwul de te barki Serigne Fallou yee ñi dégg anglais nañu bind sama jabar wala ñu laaj Feuteun Diaw mi ma daan yónnee xaalis wala may dugal xaalis ci kontam wala ñu laaj Mortala Alain Idi ngeen laaj ko moom mi ma daan yónnee xaalis mu may jëndal marchandise siin mais boobu xalaatuma Assane Diouf rek xalaatuma yee man sama doom yi yee bu ma eggee Sénégal oto bi ma war a dawal étage bi ma war a dëkk non non non Cheikh ibro xalaatewu ko woon noonu te loolu mooy suñu problème ñun sénégalais yi dañu toll ci jamono boo xamante ni ku nekk sa bopp ngay xalaat te li indi loolu yëpp duma ci sikk kenn doomeraam yi ñu jiite contrôlé ñu contrôlé ñu comme ni ko président bu Sénégal defee bi mbir mi amee coow yëpp am defiléwul ci hôpital yi defiléwul ci clinique li jëntiwul fa garab di jaayee mais xoolal dafa dem ba port di defile ci taatu saaku ceeb yi di sargal ceeb ceeboo ceeb xaritu sénégalais yi yee su ma la joxee yow ceeb lu ma bëgg dinaa ko am ci sénégalais yi mais li jëntiwul ki corona hôpital fan li jëntiwul ki corona Pikine li jëntiwul xam nga li ma la amuñu ay testeurs yu ñu mën a tas ci mbedd mi gis benn Assane Diouf ak mouvement ñu jox ko xale yi étudiants yi ñoom am ñi ngi fi professeur la xam nga li ma la ah Mbaye Diop mi ngi fii xam nga boo yëpp Ibrahima tout le monde boo yaa ngi fi boo yi duñ fi jeex ay mbàkkee fàllu ay xale ay xale yoo xamante ni xoolal man dama leen di xool rek dama leen di xool rek sama yërmande di yokk saa su ne sama yërmande di yokk saa su ne joxuñu leen loolu yëpp pour ñu jéem a gëstu. xam nga jàngoro ji fan la nekk moo tax chaque jour bu ma yeewoo damay waxtaan ak daam ndaw ma ne ko daam fàttalikul ne américains yi am nañ possibilité nekk ci mbedd mi di ceet doomu aadama yi mais Sénégal gi yow mii sax wóoru la ndax am nga corona wala man mii parce que tasewuñoo kenn ku ne kaay leen def test te bis bu nekk xolal tàngoor baa ngi fi suñu yaram yaa ngi tàng ñenn ñi ñi ngi naan dañoo siburu ñi naan dañoo soj ah xam nga tey rek dama toog benn booy naan corona bi dafa ñëw ci heure soj xoolaat ko ne ah fii waruma fee toog xaaral ma jóg <laughs> parce que xam nga corona noonu lay ñëwee noonu lay ñëwee da jàpp comme genre soj yooyu xam nga ma la après def benn sëqët xam nga li ma la après def benn tàngooru yaram comme siburu xam nga nga naan damaa siburu fekk boobu mi ngi def liggéeyam léegi bu eggee sa xol bi nag moom c'est fini noonu la def américain yi di ray bis bu nekk te ñooñu ëpp moyen quarante quarante quarante six mille xaw ma quarante cinq mille doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan dafa naa dégg ngeen guerre Irak de ah dégg ngeen guerre Syrie mais li ëpp importance ci yooyu xew yépp ci yooyu xew yépp rayul quarante nangam mille doomu aadama américain te ñoom ñooy première puissance mondiale léegi ñun sénégalais yi kan moo ñuy garantil ne man mii awma corona wala sama dëkkandoo wala ci quartier bi kenn kenn ñëwul taxaw lijjanti loolu kenn kenn taxawul lijjanti ko léegi ngeen bàyyi seen xel ci ne ñun mucc nañu muccaguñu de Baay Faal muccaguñu parce que ñu ñu yaakaar yee gis ngeen yaakaar bi ni mu demee ay kilo ceeb ay liitaru diwlin ay ay genn wàllu saaku ceeb walla ay ay ñaari kilo ceeb di leen ñàkkal fayda yéen sénégalais yi di leen ñàkkal fayda yéen senegale yi ay nit yoo xam ne tekkiwuñu dara ay baadoola lañ ay dooméram lañu ay dooméram defar seen àdduna defaral ko seeni njaboot gis ngeen seen doom yi ak seen jëkkëru doom yi ñooy baal di yu utiliser drogue ba suñuy mbokk di fa dee boo demee oto yi gaare fa ñuy baale billaahi buñ la ko waxee xoolal boo ko évaluer yëpp oto yëpp day dem un milliard wala un milliard ak lu ko topp yee genre doomeram yooyu ñëw di leen manipuler yéen sénégalais yi di wax ay wax yoo xamante ni tekkiwul dara ànd ak ay xam nga ay nit yoo xamante ni tekkiwuñu dara ñu mel ni ay yuuxu mbalit nduur ko nga xam ne tekkiwul dara du dara du dara barki sëñ Bamba du dara yeewu leen du dara télé bi mu yor moomu ko lammiñam nag moo ko moom mais télé bi moomu ko ci alalu sénégalais yi te billahi wallahi wa taalahi lu leer naññ laa leen di wax parce que man xoolal damaa toog ak sama papa Ablaye Wade waxtaan ak moom <laughs> lu may wax lu leer la li may wax dafa leer naññe ba pare sénégalais yi xoolal télé boobu du fay impôt nan la moome télé bi nan la ko moome nan la ko moome tele bi suñu télé la ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko war a contrôler ci guddi yi ñu toll nii parce que waa ji du fay tax loolu la bëgg lijjanti ci affaire corona bi nii xam ne sénégalais yaa ngi ko teg bët parce que bokk na ci ñi gën a foqale ci réew mi moom ak président mag seeni ministre ak ay Mansour Faye ak ay Marème Faye ak ay xool leen li xool leen lim bi xool leen fi affaire yi jaar ak ngeen xool li ngeen doon jooy deux mille dix huit mille dix neuf ngeen xool li ngeen doon jooy deux mille dix huit deux mille dix neuf mooy na fi Macky jógee Macky wu ñu ñoom ñuy ñëw di leen wayal naan Macky ñu arrangé Macky moo fi gën parce que boobu Macky moo gën ci ñoom mais gënuñ ci sénégalais yi te ñoom lijjanti wuñ li gën ci sénégalais yi li gën ci ñoom rek la ñuy lijjanti ba tey jii loolu la ñuy lijjanti moo tax corona bi ñëw nit ñi feebar demuñu ci hôpital yi jéemu ñoo dem ci clinique yi lijjanti malade yi jéemu ñoo dem joxe ay aide ba ci dëkk bi ñu dëkk Médina demuñu fa joxe ay aide di dem di taxawaalu di saaga nit ñi di reewantu di def ay affaire doomeram di wax wax yoo xam ne tekkiwul dara barki Serigne Bamba di préparer seen bopp tamit pour élection 2024 man maa leen di génneel preuve yëpp fii ak fii ak ay fan di préparer 2024 parce que dañu defe ne sénégalais yi dañuy nelaw nelawatuñu nelawatuñu ñun yeewu nañu xam nañ fi àdduna bi nekk xam nañ fi àdduna toll duñu bàyyi dara jàll du ñu bàyyi dara dara jàll yee dafay yem ndeyam tey yuuxu mbalit nduur yéen yi nag li nga xamante ni moom laa leen jox ci message parce que sama baat baa ngi wàcc ceeb bi day jeex diwlin gi day jeex nguuru Macky sàll day jeex nguuru Mansour Faye day jeex corona bi day jeex yàlla mi ngi fi te senegaal du mës a jeex Sénégal gii du jeex de du jeex de bañ dalee àdduna day tukki ba léegi kenn xamul kañ la te ba tey jii àdduna baa ngi fi loolu mooy dañuy dem rek ñeneen ñëw ñun dañuy dem ñeneen ñëw corona bi li muy bari bari doole tukkalagul àdduna li malaria bi rey corona bi reyagu ko li tuberculose rey ci senegal corona reyagu ko li ABC rey ci senegal corona reyagu ko li euh, naka lañ koy waxe euh, feebar bi jalis bi rey ci senegal corona reyagu ko li jigéen bu ñu war a dimbali mu am doom rey ci Sénégal corona reyagu ko li accident rey ci doomu sénégalais corona reyagu ko li papa sama bopp day metti wala sama biir day metti ñu jël yóbbu hôpital ñu jaara fa kenn xamul lu la rey kenn li lijjantiwul amul DNA amul li ñuy wax ADN kenn lijjantiwul lu la rey kenn xamul ndax dañ laa posale kenn xamul nu mu deme Baay Faal yeewu leen waa Sénégal yeewu leen ngeen delloo siwaat seen xel yi yeewu leen ngeen bàyyi ci seen xel ne Sénégal gii ñu nekk xoolal benn doomeram ëppale wu ñu fi. Sénégal gii ñu nekk xolal ñun ragaluñu dee pour Sénégal ragaluñoo dem kaso pour Sénégal ragaluñu doomeram buy gaaruwaale ragaluñu seytaane bu tëj sa néeg ànd ak say musicien di wa di wax sa waxi seytaane ragaluñu lenn lenn lenn lu dul suñu boroom te dinañu xeex ngir suñu boroom ba keroog Sénégal di am jàmm fépp fu sénégalais nekk nga am jàmm àdduna bi am jàmm bu ko defee ñëpp nekk ci jàmm bu amul ñu nekk ci jàmm sa waay tant tooñ jeexul xeex du jeex Baye Fall yow laay waxal tant que tooñ jeexul xeex du jeex tax tooñkat yi nañ bàyyi tooñ Macky Sall bàyyil tooñ état bu Sénégal bàyyil tooñ Mansour Faye yaa ngi continuer di tooñ sénégalais yi Aline Sall yaa ngi continuer di tooñ sénégalais yi yéen gouvernement bu Sénégal yéen a ngi continuer di tooñ sénégalais yi te bu leen defe ne xolal di ngeen raw parce que xolal ñun bu ngeen ñu rëccee tamit du ngeen rëcc suñu borom munoo raw munoo raw te àdduna fa changé technologie bi dafa yaatu lu ñu neex ñun ak li ñu bëgg ñun moom la ñuy dunde li ñu neex ak li ñu bëgg moom la ñuy dunde bu ngeen déggee loolu mooy réew mii ñu nekk xoolal jeunesse bi dañoo déterminé dañoo déterminé pour lijjanti li xew ci biir réew mi kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara moo tax xoolal bu Assane juuf demee tamit beneen Assane juuf dina ñëw bu Assane juuf tëddee tamit yeneen Assane Diouf dinañ jóg bu Assane Diouf nelawee yeneen Assane Diouf dinañ yeewu yéen waa Sénégal yéen rek yéen a mën a jubbanti senegaal surtout yéen jeunesse bu Sénégal surtout yéen jeunesse bu Sénégal muy étudiants yi muy marchand ambulant yi muy luyeekatu engin muy coxeur muy apprenti super muy chauffeuru taxi yéen rek yéen a mën a defar Sénégal billaay wallaay keneen kuñ yen wax ne dina leen dimbali pour ngeen defar seen réew day fen ku leen ko dig da leen di fen ku leen wax ne mën na leen a defal te yéen jógu leen pour def loolu xoolal loolu mënta nekk moo tax ñuy dal ci suñu kaw bis bu ne ndax dëkk bu amul yoon dara du tegu ci yoon dëkk bu amul yoon dara du tegu ci yoon kër sax bu amul yoon dara du tegu ci yoon kon yéen jeunesse bu Sénégal man yéen laa doon waxal démb yéen laay waxal tey du man kese ah. bu doon man kese la comme ni ma leen ko waxee sànk rek États-Unis di dund di dawal samay oto I speak English my brother I speak English not all of the English but I speak English to take care myself and I know how to talk to people and I know what's going on in this world my brother I was learning I was there to learn. I was learning what is life. That's the way I find out who the fuck is that's that guy, that guy, Youh Mbalit Ndour. That's how I find out. Because when I was in Senegal, I was sleeping. I was in love with that guy. I was saying he's the best. And he was nobody. He was nobody. And the man I'm talking about right now, his name is Yuhumbalit Ndur. I don't want to mention his name because he's coming with Satan. He's, he's like the devil of Senegal. And we are the Senegalese people. We are the one who had to take care of ourselves. That's why I'm fighting. That's why I was in America fight. All the way today, get me deported. And they about a shit. Oh, the guy got deported because he was not, having papers. Ask how many people in the United States who had deportation and still in America. Ask, my about something you don't know nothing about it. Ask how many, how brother who in the United States right now, sisters, mom, and they don't have no papers and they under deportation and they never come get them in their house like they come get me because I don't sell drugs. I didn't kill nobody. And I was there ever since 19, ever since 2001. I was working every day. I do everything the law of America asks me to do. I was following the law of America. The only thing they might come blame me is just selling in the street with no license. And every time they give me community service or anything or the judge order something on me, I will go and do it. I never run away. Never run away. Until the day immigration come to my house and get me and deport me in Senegal because the government of Senegal say I'm a terrorist. And with all of that, fighting for my people, they keep on talking bad about me, say, oh, this guy is this, this guy is that. But the guy is still here, I would say thank you to my family in America. I would say thank you to all my friends, especially my lady, Malika Obaka, to be, you know, like fighting for me every day with her family, dad, mom, daughter, sister, friend, supporting everything I do. And they never talk about me badly like my people. And I was fighting for my people, my brother. But today, thank you. thank you again thank you Malika thank you thank to your daughter to your mom to your dad to your friends I love you Anta my daughter I love you Anta daddy love you Musa daddy love you I will get back to you soon brother I will get back to you Daddy will come see you. All right? Anta, Daddy will come see you. I will get back to United States, inshallah. I will come see all my family again. Because I'm not a criminal. I don't kill nobody in America. I never sell drug. I never do nothing. Nothing bad to any American people. Not even a one. But I learned how to be a better people in America, how to, be caring about people, how to grow up stuff, how to help people, and how to think about people. That's what I learned in America. That's what we don't have as Senegalese to support each other, to help each other, to lift you up when nobody's there, but they always talk shit about you. That's why I always say, all my sisters out there, America, Fatan Jow, Sally, Yahadi, the family, the youngsters, I don't want to mention their name because we're dealing with internet, but they all my children, and uh, Usman Tunkara, all my family there, Musa, everybody, Lai, you know, Everybody, everybody America, Jean, Toop, everybody, brother. I would say hi to you guys. Pop I love you. You know, one of my friend. I love everybody out there. I love America. And I'm praying for everybody to get healthy out there. Everybody. Not just the Senegalese people, but Mexican people, Arab, Jamaica, South Africans, Nigerian, Senegalese, all over the world, Chinese, anyone, everyone, to be healthy. And I'm praying to America to get back to their feet, man. I'm praying for America to get back to their feet. Have somebody, who care about them. Somebody's good. This is the reason why when I was there, I was cursing out Daniel Trump like, you know, he's not even I was cursing at that man like like a shit, brother. I don't like that motherfucker. Ask Malika. The day he win the election, I, I, I cry. I cry. I put my cover in the sofa and cry because, you know, to me, what God was showing me is what happening today. This is the Chinese virus. And he don't take it like a nothing. And that's the result. They many, many American sisters and brother who died today. And that was so crazy to me. I don't even want to work. I don't even want to do nothing. I just want to be Asani and wait to God and to know I'm not better than those people who die and waiting for my time. That's why I'm praying for you guys, praying for my family, praying for all the people around this world from Senegal to Paris, from Paris to England, from England to Germany, Italy, Spain, all over Europe, all over, America, Latin, South America, I'm praying for you guys to be healthy, my brothers. I love you guys, and I will never give up loving you, and I will always have love for America because I had two home. One is Africa, the second one is America because of my children. I had two of my children who born in America, and that's their home. That's the reason why I will never give up love in America. And I love my lady too. Because she always there for me. She always there for me. Something a lot of people don't have. Because, you know, I don't know. And I think God loved me. That's why he blessed me to have that woman. I love you, Malika. And I will love you for life. I love you, Sally. I love you, Yahadi. I love all of my sisters. And thank you, everybody. I will go take a little bit of rest. And uh, I will allow you guys to enjoy a little bit of music. And I will come back, talk to you guys for something else. Yéen waa Sénégal man laa Assane Diouf man maa ñëwoon génn foofu tey pour waxtaan ak pare. di leen ñaanal jàmm ba pare di leen wax ne bu leen fàtte ne corona bii ñuy wax corona bii ñuy wax feebar la boo xamante ni doomu aadama moo dugal loxoom fu mu warta dugal loxoom ci ay gëstu nag laa leen ko wax xam nañ ne yàllaa bind lépp mais doomu aadama moo dugal loxoom fu mu warta dugal loxoom moo tax corona bi génn ci laboratoire yi ba egsi fi mu egsi tey doomu aadama moo ko moo créé loolu doomu aadama yooyu ñooy doomu aadama seytaane yi mel ni ay yuuxu mbalit nduur bi nit ñiy jooy naqar ak tiis ak lépp ñuy xool ñoom nan la ñuy def ba dund ci doomu aadama yooyu ñun ñoom la ñu war a moytu ñun ñii ñoom lañu ñu war a moytu gën a bàyyi suñu xel ci yàlla suñu boroom gën a xool nan lañuy def ba gën a booloo bañ di toog di yàqante ay der bañ a topp ñi nekk ci internet bi di saagante di xastante te xam ne ñun bi ñuy jóg di saaga ak di xeex yee dañ doon xeex pour suñu réew xeexuñu woon pour xeex ci suñu biir mais dañ doon xeex pour suñu réew pour mu am jàmm te même ñi ñu doon xeexal ñun buñ leen mën a jubbanti ba ñu nekk ay nit xoolal moo ñu gënal moo ñu gënal mais comme dañ ñoo tànqam lu dégluwuñ ñu ñun ñuy xeex ba egsi fii yee nañu góor góor lu continuer xeex boobu bàyyi xastante beeg saagante bi di ko ñaan ñëpp di ko ñaan ñëpp ñëpp nag kenn rek laa ko dul ñaan parce que dama am sañ-sañ ci moom di ko digal muy def muy Ousmane Tounkara man maa la digal bis ki tey bu la nit saagaatee ci internet bi ku dul ku dul actualité ak état bu Sénégal bul am jotom bul am jotam di la ko ñaan yow François Hélène di ko ñaan ñëpp arrêté leen arrêté leen arrêté leen jëf yu ñaaw yi arrêté jëf yu ñaaw yi mel ne waa OSR di def jël yëfi jaambur ba pare ne dang koy jéema a pour sensibiliser ay doomu aadama te yow sàcc nga OSR Ousseynou Diagne dëkk Baobab nekk itali nan lañuy ñuy jubbantee Sénégal ci ay dooméram yoo xamante ni dañuy xëy di jël alalu sénégalais yi di jël alalu nit ñi bëgg koo utiliser moo tax ma ne képp kuy dugg OSR di fa live di am looy wax di am looy wax yee na nga xam li ngay wax lan la parce que OSR barke Serigne Fallou Hélène a ngi dund Salé ngi dund ñëpp a ngi dund ay Codé jaañ tout le monde ay Reine Diop ay Viviane Sophie ñëpp a ngi dund ah Assane Diouf ko moom yow Ousseynou Diagne tuddoo Assane u Ousseynou jaañ nga tudd loolu rek moo wane ne doomeram nga loolu rek mooy wane ne doomeram nga mais li ma lay wax dama la koy wax parce que bul fàtte ne xoolal sa yaay moo ne ma woon dénk naa la ko te noonu mu la dénkee ah ni may taxawee di wax samay doom ay doomeram ngeen bu ñu defee lu dul yoon ah moo tax ma ne la doomeram nga jubbantil sa bopp walla nga changé ndeyu turu OSR nga tuddee ko Assane Ousseynou jaañ ak sa fekk tur tuddoo Assane Diagne Ousseynou jaañ nga tudd doomeram doomeram jubbanti Sénégal ñun ay activiste lañ ñun dañuy xeexal Sénégal ba pare di dugg ci page boo xamante ni yow da nga ko sàcc ci sa moroomu sénégalais danga nga sàcc page bi ci sa moromu sénégalais naka ngay jubbantee danga nekk sàcc yàkkamtee parce que Macky Sall def na lii diw def na lii live kat bi live na lee wala diw wax na lële ndekete yow yaa gën a nekk ñëpp doomeram may wax ngay wax ci suuf man dama laa soxlaal ndeyam yow yaa ubbi ndey sa làmmiñ Reine Diop seede la ñuy wax suñu wax ci dëggal suñu bopp suñu programme nga ne Reine jëndal naa xale yu dëggal suñu bopp yi ay mayo lii ak lii conteneur bi mi ngi ñëw dama war a woo waa ji duul duul duul duul duul duul man dama laa mës ñaan dara doo wala waneel foo mës a yónnee un franc ci man doomeram mooy wax ngay wax ci suuf yow Ousseynou Diagne dëkk Baobab nekk itali doomeram damaa rus sa jabar mais kon dinaa wax turam tamit wax sa turu yaay mais jotewuma ak ñoom dara moo tax du ma tudd seen tur te respecté naa leen changel nday turu OSR te lii yëpp François Hélène Gaye waxoon na ko loolu rek moo may rusloo ma leen di défendre samay nit di leen défendre ndekete ay doomeram ngeen yéen waa Sénégal weeru koor baa ngi ñëw ah weeru koor baa ngi ñëw <laughs> weeru koor baa ngi ñëw de waaye nag xool leen fàtte ne yàlla moom ngeen gëm ah? te yàlla moomu moo bind xolal dooméram bi dugg ci laboratoire yi ba créer virus bi muy rey ay junni junniy doomu aadama ci àdduna bi te virus bi xolal buggul put buy wow chaque jour te dama ne leen ponki ponki julli yi juróomi la aj nañu umra aj nañu aji màkka sawaay ku ci woor ku ci woor ba corona bi jàpp la ku ci woor ba corona bi jàpp la boo demee boo dee safara nga jëm parce que xoolal eh suñu borom neewul kenn mu xarwaa ah. méfiez-vous préparez leen seen bopp préparez leen seen bopp yéen waa Sénégal nag laay waxal préparez leen seen bopp ba jamono soppeeku corona tuxu dem yoonam ngeen topp seen weeru koor ni ngeen ko war a toppee ba pare ak sanction yii ñu teg ak problème yi nekk ci dëkk bi yëpp yéen ci seen bopp xam ngeen ne bu ngeen yenoo weeru koor bi dina metti ci yen trop kon man Assane Diouf doomu aadama laa kom doomu aadama yëpp am droit conseiller sama réew kom doomu aadama yëpp sama conseil ci yéen mooy arrêté leen weeru koor bii ba beneen weeru koor ñëw ngeen woor ko parce que corona bi bëggul put buy wow benn te wax nañ leen ko ñépp di ko dégg corona bi dafa soxla ngay naan lu tàng ñaar te corona bi mu ngi biir Sénégal te kenn lijjantiwu leen te weeru koor gi dina dina saf sappan ah. couvre feu huit heures couvre ah. def leen ko seen xel ba pare ci weeru koor bi nag kon boo booyoboo ngeen xam lan moo nekk seen digganteek seen yàlla parce que moom moo ne man kaana lillaahi kaana laahu lahu ku ma nekkal ma nekkal la xoolal foofu rek laa mën a yema ah. duma ci dolli leneen xam nga ma may leen <laughs> ki yëngal àdduna bi la grand waali waali mi tax mag ñi di jëfru mu ñamal leen tuuti ñu tàggatoo ñu tàggatoo ah kontaan naa ci yéen lool laa leen digal ci weeru koor bi ah ku mu neex waxal la neex mais man bakkanu senegal yi laay lijjanti ba pare man moom wóoruma moom man moom du kenn ku ma mën a wóorloo xanaa yàlla jël sama bakkan bi tey ci guddi waaye wóoruma naan bu ma xëyee dinaa naan lu tàng balaa maa tëdd dinaa naan lu tàng ma demee ba diggu bëccëg ma naan lu tàng ba korona tuxu te heureusement man moom weeru koor waaw saa su ne xoolal addee maam Cheikh Ibrahima Fall laa koy joxe sax far waaw jeex na tàkk keneen ku ko mën booye woo nga joxe ko addiyee maam Seera Fall ci at mii ñu nekk muy twenty twenty ok waaw <laughs> moom laa leen gën a gise de parce que ku ci woor ba leneen fekk la ci moom xam nga kooku yaa koy digganteeg sa borom assan Diouf du ko fekke loolu nag laa am lu ma leen di wax mois je fais pas Ramadan moom I'm not fasting do you speak English I'm not fasting. Tu parles français. Cette année-là, moi, Hassan Diouf, je vais pas faire le mois de carême. De... <laughs> je vais rester comme, toujours. OK Avec le corona là. Moi, je vais rester Hassan toujours. Je vais manger, je vais boire de l'eau chaude tout ça. Je vais, je vais faire tout ce que j'ai l'habitude de faire pour être normal je veux pas mourir hein yeah je ne pas mourir ok Sénégal leen yàlla defal jàmm Lassane <laughs> Diouf waaye ah, sama gars yi naa ne gars yi ci terrain bi waaye nag fi mu toll ni moom sonn naa sonn de yoo ñu bàyyi yuuxu mbalit mu tàggatoo dégg ngeen na ah? comme nee na tey lay tàggatoo après ñi suñu message jàll muy ñëw di fen ñu bàyyi ko mu tàggatoo Papa Abdoulaye Wade man la Assane Diouf maa ngi lay ñaanal yàlla yokku la wér yokku la ay xéewal ci sa njaboot dimbali sa doom ci sa yéene ak li nga bëgg ci moom di ko ñaanal bépp jeune sénégalais di ko ñaanal politicien yëpp di ko ñaanal parti yëpp tout le monde les Sonko les khalifistes les karimistes les idistes les tout les tout les assénistes <laughs> même les les les yuuxu mbalis nduuristes <laughs>